asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar ci Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te dolli ak wéram waaye di ñaanal nag Serigne Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mahamadul Maamun ak mbooleem njabootu Serigne Gaawaan gépp yal na leen borom may fan wu gudd ànd ak wér gu di ñaanal nag jëwriñ ji ñu toog dend ak moom di sëriñ Cheikh Anta Mbakke di jëwriñu kër sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbakke yal na yàlla may ko fan wu gudd wa ànd ko wér kàttanal ko ba mbooleem naal yu mu naala liggéeyal sëriñ Mouhamadou Rokhaya suñ borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko te ànd ko mbooleem ay rakkam yëpp ñu toog nag ci jataay boo xam ne jataay sant yàlla la mu jataay boo xam ne moo ko sàkk woote wax ne dafa bëgg a yëkkatilu ay kàddu yoo xam ne day jëm ci mbooleem koo xam ne yaa ngi aju ci kër sëriñ Modou ya la ko tàmbalee ci buntu kër bii nga xam ne mooy jëwriñ ji jaar ci sëriñ Mouhamadul Mamoun rakkam ba ni moo agsee ci buntu kër sëriñ Mbacke Madina mi caatum sëriñ Mouhamadou Rokhaya waaye nag di ko yëkkati itam ci mbooleem koo xam ne mooy sa mag ngeen bokk sëriñ Modou Mamoun ak buntu kër boo mën a nekkee muy lan bis bii nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ajuma ji te war cee ubbi jumaa jii nga xamante ne bii mooy jumaa ji sëriñ Touba Xaadim Rasul njëkkal njëkkal rëdd ci dëkk bu mu moomal boppam rëdd ko ci le 18 décembre 1884 di bisub talaata yemo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar jumaa jooju nag sunu jur bu baax wa sunu sëriñ bu baax ba sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké defoon ca lam man lépp ànd koog rakkam yu baax ya sëriñ Amidun ak ñam bokkaloon sëriñ Moudou Mamoun bam mu tàbbi nag ci loxol sëriñ Abo Mohamed yàlla na ko yàgg jiite lool ñu liggéey ko nag ba liggéey boobu àgg. mu fas ko yéene woote àjjuma le 26 incha allahu rabbi loolu moo tax sëriñ bi dajale njaboot gi ne da ciy woo mbooleem ku mu bokkal sëriñ Modou Rokhaya kaddu yooyu nag mu jox ko sëriñ Fallou Mbacke rakkam nga xam ne moo war a yëkkati kaddu yi ñu woote bis boobu ak bis bi nga xam ne nag ci la Serigne Touba liggéeyale boromam ba liggéey ba mat mu ñibbisi Daaru Salaam fekk si rakkam ju baax ja di maam Cheikh Anta Mbacké mu war a doon le 8 juin incha allahu rabbi di màggalu Daaru Salaam ñaari moo tax Serigne bi ne mun na ca ñàkk yëkkati kàddoom ndax ñiy déglu ndigalam ñëpp waajal ko kon kon ñu maa si déglu Serigne Fallou. asalaamaaleykum bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu Serigne suñu jëwriñ di Serigne Cheikh Anta Mbacké moom ci bis bii nga xam ne da ko woote fii ci kër Serigne Modou Rokhaya ngir bokk yeeg taalibe yeeg ñëpp ñëw teewe si ko fekk si ko ci ndigalal kilifaam Serigne Abo mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Modou Mamoun ci bis bi mu woote nii tamit bis boo xam ne bisu yoonu murit wépp la di ñëpp moo tax sëñ Cheikh Anta jóg njaboot gépp waa kër Cheikh ak waa Daaru Salaam ak ay soppeem ak am di jàmmam ak lépp lu aju ci moom leen woo ci bis bi ñu teewe ko ni ko sëñ aboo bëgge ak ni mu ko wootee dëgg la sax woote sëñ aboo bi doyoon na waaye moom day jëwriñ ci kër gi di jëwriñ sëñ aboo moo tax mu ne woon na dajale njabootu sëñ Modou Rokhaya gi tamit gën leen a soññ ñu gën taxawaay bu ñu ci amoon ñu yokk ko ba njaboot gi ñëpp ngi ni teew ci kanamam ñu ñuy ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm te def ko ak jàmm te liñ ciy séentu lépp ñu daje ci ak moom ci barkeb Seexul Xadim jërë ngeen jëf sëñ Seexante nee na benn taalibeem bàyyiwut kekk seex si bàyyiwut ko aju ci moom bàyyiwut soppeem bàyyiwut kenn mi ngi woo ñëpp na ko fi ñëpp fekk ñu ñu ci ni ko sëñ boo bëggee ñu defale ko ñu ni ci barkeb Seexul Xadim baax na jërë ngeen jëf. Eh, Cheikh Mamadou Fadal ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci ndigalul magam di sëriñ Cheikh Anta di xalifa Serigne Modou Rokhaya moo xam ngay rakk wala taalibe nee na bëgg na àjjuma ñoom ñëpp ñu fekk ko Daaru Salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi mu sax fa fukki at ñooñam di santaat nit ak juróom yett la am ci ay at arafitu baala ma ne su koo mi at la seex yilif minal muridiin tisxan wa tisxiina mu téeméeral leen ca mooma la ko bu ma sàll ak ibra fatim saar di ñaan ay sàll mu bañ ñu naa ko lee nga tàggoog mbooloo mbaate nga génn réew mi tey jëmbeelu